tey c'est une vieille tradition ludique il est revenu au bout du jour la taaja boon eh. ma fekk fi koo xamante ni Fatou Law mm. daa xewle mm-hmm. ne man kenn safuma ko dul Ousseyn Mbaye xewul eh. doomam mu engagé ma fay ma samuy ndaanaan mu noon woo ku ko neex mu ne Ousseyn Mbaye laay engagé mm. moo ma jëkk dugal mm. yëmbal sama yaa jooju di gërëm bu baax ki nga xam ne man ak moom petit ba grand muy sama rakk di sama xarit muy umaroo mu Serigne Sall. umaroo bu Cheikh Béthio lëmbal da lay wër hmm. Hmm. joxe am na ñu mu yombul dëgg la Cheikh day togg ñan di joxe nee leen waral gi waral gi waral gi waral gi waral gi dëgg la waral gi waral gi waral gi waral gi waral gi Cheikh Béthio Thioune mooy sunu Serigne eh. Eh, waay waay loolu bari na waay tey nag dañoo am gan bu mag boo xamante ni mooy Fatou Laobé Fatou Laobé nag tey xam naa ne boo tëggee fii nag da daal di tas